gars yi ñu leen nuyu wax yi ñuy suivre sport ñu war ñëw yéen wax ci Mamadou Lamine Camara bi nga xam ne mi ci U23 yi Sénégal face Mali mu ibbi score bi ci 12 minutes mu doon bi bu extraordinaire ñu wax magnifique bi mais avant ñuy ñëw ci loolu di ko gën a faram-fàccee dañoo ñi nga ci page bi abonné bës ko bi pour ngeen am suñu vidéo au fii ci sport waaw sama gars yi may wax lii lan lii lan lii laa xamul Mamadou Lamine Camara bi nga xam ne tocc na euh, CAN U20 bi tey ñëw na ci U23 yi di wane ne moom li mu def da koy confirmer nekkul jour boo xam ne euh, maanaam day tàqale mais jour la boo xam ne dafa am fu mu teg bëtam tey moo nekk bii boo xam ne franchement mën nañu wax ne dal na xel fële ci stade Ablaye Wade kon franchement xale yi lii rek euh, jàngat la ne li ñu def lu ñu mën la li gars yi waxoon ne war nañu leen mën a woo ci IPA bi lii da koy dëggal kon li ñu def lu leen ñaan ñu continuer ci prochainement yu nekk ak ci. Euh, euh, kii bi ñu nekk conférence bi ñu nekk ndax mën na leen a yóbbu fu nekk kon gars yi dama nekk vidéo bi bu leen di abonné commentaire partage like ngeen ñeen xaar fi société jël ko ak yeneen vidéo ak yeneen jàngat bu ñu bàyyi dara sama gars yi merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax merci beaucoup